suñu jaar jaar daal dañu su ko xaar seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque baat yi baat bi gën a màgg ci baat yi waaye baat bi nga xamante ni moo gënal suñu borom muy baatub laa ilaha illa allahu di sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu yàlla mayee kàttanam moom yàlla ci kàttanam ñu teewee ci bërëb bu sell bi jàkkaarloog rijjaalullaahi yi ñuy yëkkati kalimatu laa ilaha illa allahu kon ñoo ngi sant yàlla bu wér a wér a wér a wér a rabbil alamin ah ñu ñëw rek daal di wàccee ñaari kàddu rek du bëri lépp nag nekk akub cant ci bërëb bu sell bii nga xamante ni tey fii la ñu baas di yëkkati kalimatu laa ilaha illallah kon jëfee ngeen li Cheikh Moussa waxoon bu ma sañoon buntu kër bu ne dañ koy baas tudd fa baatub laa ilaha illallah waaye buñ ko tuddee ba pare daal di koy leeral kon alhamdulilahi ba ñu teewee ci bërëb bii nga xamante ni kenn du ne dégguma baatub laa ilaha illallah waaye kenn du ne layuñu ko ba mu leer sama kanam ndax ñi fi nekk dañ ko matee sëkk sëkk sëkk li ñuy def kañ mooy di leen ñaanal yàlla dooley biir ak biti ci dooley laa ilaha illallah barki Cheikh si Cissé Ndiamé borom daaru waaye di xamal ni suñuy mbokk yéen ñi nga xamante ni yéen nekk ci bërëb bii lii nga xamante ni moom lañuy ñuy yëkkati muy kalimatu laa ilaha illallah moom la yàlla joxoon kullu yonent boo xamante ni wàcc nga ci kaw suuf benn message la la yàlla joxoon ngir nga leeral ko ci jamono mooy baatub laa ilaha illallah ak secret bi mu làmboo boo ñëwee ci jaam ñi wàcc la ngay wax jaam ñi mooy fàttaliku leen seen borom waaye jaam bi lépp luñ lay fàttali rek fekkoon na ne xam nga ko waaye jamono moo la dab ba lëndëm lëndëm teew nga fàtte li nga xamante ni moo la fal te ku fàtte la fal folleeku leer googu moo wàcc ca daaru kër ma a siise jëm ji mu soloo ñu koy woowee Cheikh Moussa Siise ñambe borom daaru waaye leer googu ma ngi ko jëlee ci sang bu tedd ba cheikhul xadim xaadimu rasul leer googu moo war a cheera faal ñu naan ko aboo rijaalullahi da jëp gi bi jëkkëru góor ñi toxoram mbambulan gi dama ne laa ilaaha illallah faal déedéet laa ilaaha illallah wahdahu laa sharika lahu buñ ko nee lay ilaaha illallah faal rek ful la jam ci amoon la ak fayda jam ci amoon la ndax xam na ni mooy dund gudul jeex gi laa ilaaha illallah boobu moo wàcc ci këru kulli kër diine goo dégg ñuy woote woote bi de tàmbale bi li ko sos mooy laa ilaha illallah ak sa kër bi mu làmboo leer googu nag moo yegg si fii ci leer googu lañ leen di woo leer googu turu kenn newu ci sant kenn newu ci dañuy yàlla rekk di leeru suñu borom ñu fas yéene ko leeral rek ci jëmmi yàlla te jëmmi yàlla rek tax ndax moom rek a fi nekk di leeral kon alhamdulillahi rabbil alamin kon dañuy soññ suñu bopp dellu di soññ suñuy mbokki taalibe lii nga xam ne mooy ngëneel ci kaw suuf lii nga xamante ni képp ku mu nekk ci yow dootoo gis stress sa xol bi du yëngu déedéet doo raf doo tiit doo ragal ku yàlla sàkk ndax xam nga ni yàlla rekk moo fi nekk kon yéen samay mbokki taalibe rawatina soxna yu tedd yi leer gi la maam jaara bu sa amee woon ba taxaw fa mu taxaw ubbi kaamil bi ne ginnaaw li yàlla wax ne bu dul woon muhammad rasulullah beneen yonent dootul wàcc man maam jaara bu sa ma ci téere bi ne dinaa juróom yonent waaye tey li mu jur ci jamono billahi lazi laa ilaha illa huwa xool gis gëmm gis sëgg gis nelaw gis yëkkatiku gis toog gis kookooy cheikhul xadim jantu diine fenk na ki koy wane kookoy Cheikh Moussa Cissé Ndiambe borom daaru ca daaru kër ma xuréja Cissé kon soxna yi tedd yi bu kenn jël maqaama yi nga xamante soxna yi tedd yi nañ ko di ko jagleel ñu njëkk ña bàyyi ñu mujj ñi dama ne soxna yi tedd yii toog maam jaara busoo ngi seen biir soxna Aysatu mi ngi seen biir soxna yu tedd yi nga xamante ni alxuraan da leen a seede ñoo ngi seen biir ñooñu rek ñoo yoraat leer gii di ko véhiculer macha allah fa tabarfakàllaa ci ndigalu Cheikh Moussa Cissé njambe borom daaru kon nañu yokk pas-pas bi nañ leen yokk jaayante yi waaye nañ leen wàññi nelaw yi waaye nañ leen tudd yàlla ni ko Cheikh a waxee kon ndekete lépp lu waay di ci kaw suuf tudd yàlla moo ko feete kaw kon nañ koy tudd di ko tudd ba mu mujjee moom di ñu tudd ci barke laa ilaha illallah barke Cheikh Moussa Cissé jërëjëf jaajëf jërëjëfati jaajëfati barke Cheikh Moussa jaajëf. suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon nag. dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa wax ko xaar yi doon ko am. ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.